table il prend des décisions en fonction des des informations yu muy am ak appréciation ak ñi ngay waxal yàlla nag def na période boobu doonul woon wax ni mu waree wax ak ñi ko jege loolu mooy la vérité aussi. Hmm. man y compris yaa ngi tudd Mansour fay yaa ngi koy tontu waaye ñun xabaar yi daan am mooy itam euh, sa digg ak Marème fay neexul euh, est-ce que moom it da nga koy boole ci ñi nga xam ni da jàpp ni dañ la doon xeex féewale la ak. non du ma ko ci boole. Euh, xam nga nit mën ngeen bañ a juboo ku nekk jàpp njaamuram boo koy wax lu ñaaw sax wax ko ci secret loolu amul problème man loolu duma ci tontu wax dëgg yàlla soxna la ci sama mag donc war ma boobu man moom lay garder donc duma ko tudd duma ko taas duma ko xas xanaa mu yeewu donte nag euh, am naa yu ma war a mën a wax waaye bu yeewu woon tey ji wax ma dara kon danaa ko wax lu mel ni xeme waaye waxu ko nag ba ma dégg ko donc loolu tamit man damay am retenu bañ koo tontu ci loolu dama koy jël rek comme suma soxnaay mag donte comme ni nga wax nekkul suma xarit euh, waaye loolu moom du tere adduna bi continuer. mais qu'est-ce qu'est-ce que yow. loolu mbiru famille la ma ci wax. oui oui d'accord mais Mansour Faye aussi c'est la famille. non Mansour Faye alliance Mansour Faye bokkuma ak moom dara. fay la sant ma sant Sall su bëggee sant Sall nag na dem négocier mag ki man xataluma ko fa donc vraiment bokk ma ak moom dara. mais mais da nga meloon ni ku bëgg ku bëgg euh, normaliser sa relation ak Marème Faye. tuddee nga ko sax doom. waaw loolu Marème Faye déggoo lu ma la wax lu tax seen problème euh, réglé wul. dégg lu ma la wax mané la mbirum Marème Faye duma ci wax parce que jabar soxna la soxna sama grand frère la duma ci wax. tay ji duma ci wax lu baax duma ci wax lu bon. Hmm. est-ce que sama président Macky Sall da doon déglu lool lool lool Marème Faye am déet. ci lu daan doxalee réew mi loolu la yow yaa ko wax man. duma ci du Duma ci commande wax dëgg yàlla duma ci commandé. Mhm. Euh, Macky Sall ni mu ci élection yi candidat xex ko reporter élection ñu yokal ko ou trois ans ba yefi ni euh, coalition jomay président duma sen candidat duma yu yu metti nan ngay en tant que acteur jamono euh lo bokk bokk Macky Sall nga euh, soutenir candidat Amadou Ba soutenir lan moo tax ci sa gis-gis Macky doxalee noonu. xam nga dégg nga ma man ma wax parce que journaliste nga mbir yooyu bu mu amee ñëpp dégg nañ man ni ma jàppalee Amadou Ba dama ko jàppale d'abord parce que dama gëm ne ñun ñi seqoon Macky Sall Amadou Ba moo ci gënoon a placé pour mun a engranger des voix yaakaar gagner élection loolu mooy première chose bi. la deuxième chose mooy mënuma comprendre ñu tànn candidat dem ba ci biir di ko nasaxal surtout que en face de ñun xamoon nañ ni Amadou Ba bu wul. opposition radicale bi nga xam ne ñoom ñoo jàkkaarloo woon ak ñun di ñu yekk xamee di provoquer ay trouble ci réew mi ñoom ñoo waroon a gañe mënuma comprendre loolu te wax naa ko à l'époque euh, loolu bu weesoo nag bi ñu demee ba réew mi jaxasoo quand même complètement ñiy wax report ñii di wax ay warku coup d'état ñii di wax ay émeute ak lu nekk booba nag man vraiment jël naa sumay responsabilité ñaan Macky Sall na def li nga xam ne loolu mooy intérêt xalaat réew mi baax na waaye boo demee ba sa mandat jeex xalaat sa bopp tamit xalaat sa njaboot baax na et de ce point de vue am na yu bëri yu mu def yoo xam ne man euh, dëgg la anduma ci en tant que démocrate mais dama koy comprendre parce que euh, à un certain moment sa responsabilité première moo doon fexe réew mi am jàmm. donc dialogue loi d'amnistie génn ñoom Diomaye génn leen man loolu ànd naa ci euh, parce que boo amee recul. da xam ne il était préoccupé par le fait que bu fiy jógee quand mu bàyyi réew mi ci jàmm loolu vraiment lu ma rafetlu la donte ni ñu doxalee ak Amadou Ba loolu nag du secret parce que ay mbir moom bu ñu demee ba wax ko ci ay secrétariat national dajeek ay nit wax leen ko donte man Macky Sall mosuma woo ne ma bul jàppale Amadou Ba loolu moom mosul am xëy na nag dafa xalaat ne man dëgër naa bopp dëgër bopp goo xamante ni comme xas naa ba jël benn yoon du yàq énergie am di ma di ma wax lu mel noonu waaye nag man démarche boobu jaaxaloon na ma trop. mbir nak ci walu politique bala nga koy mëna juger deug nga am recul ay wèr wala ay at donc am information yëpp mën ko juger donc c'est trop mënuma tay ji def ben jugement péremptoire bo xam day condamner wala approuver totalement mais lima xam moy succession de faits yo xamné inexorablement daf ñu doon amener vers la défaite et c'est ça qui s'est passé. Mm-hmm. euh, mais euh, euh lutax Macky defee non il faut que ñu taxaw ci lolu lu tax mu defee noonu tànn nit ba noppi jàppale woo ko bëgg bëgg sax mu am defet ça quand même euh, c'est surréaliste. waaw man loo loolu loolu laa lay wax man du ma ci guddal parce que d'abord comme je t'ai man Macky Sall woowu ma ne ma maa jàppale woon Amadou ba léegi jàppale ma ko donte ay nit ne nee nañu ma Macky Sall woo na leen ne leen maa doon jàppale Amadou léegi bu leen ko jàppale waaye ay nit a ma ko wax donc mënu ma ci waat euh, ñaareel bi mooy man xaw ma lu xew diggante Macky Sall ak Amadou Ba. awuma occasion laaj ko Macky Sall waaye Amadou Ba laaj nako puis veille élection yi ko mal j'ai un problème parce que mënuma ànd ak yow fekk y a un problème avec Macky Sall dama bëgg xam mais il m'a dit mais Aliou man yëguma ben problème donc man ci base yoy, principe yoy, la jàpp dem à fond avec Amadou Ba donte à un certain moment xamoon naa ne on va vers la défaite mais boo nekkee ci benn choix da nga ciy dem mais le ëpp solo mooy lii ñëw suñu mais mais franchement franchement euh, Aliou Sall neexul a gëm Macky Sall doon sa mag ngeen bokk ndey ak baay mu nekk président doo ko jot doo ko gis am na ku ma mos a nettali ne sax. pour pour gis ko da nga kaa mujj kari biti réew muy wajaase nga jël avion fekk ko fa bon. c'est assez anecdotique non loolu mosul am. waaw c'est loolu mosul sa anecdotique. mais je on ne comprend li nga wax dëgg la waaye dama lay expliquer rek. Mhm. mun nga ko xam naa fi nga jëm. man mosuma topp Macky pour gis ko parce su ma jom ak suma dignité sax mayuma loolu. moo tax am na benn jeune benn homme politique bind ci livre am ne dama doon def pied de grue këram ma ne xamuma man ki ma bokkal ndey ak baay mu nekk président de dem sax këram. waxuma beneen doomu aadama man duma topp kenn Macky Sall mosuma ko topp bitim réew pour gis ko loolu mos sa am mosuma ko topp fenn pour gis ko nee naa la ñetti yoon te bu ma forcé woon gis ko ndax bu ma demoon taxaw ci pale bi xuloo gars yi dinañ ma bàyyi ma jàll comme ni ma ko defee jour bi mu waxee ne dafay du du dem troisième euh, mandat damaa kontaan ba taal su moto dem palais gendarme ne ma ti n'est pas prévu ma leen may foog ma gis ko. ah bon gannaaw gi ñoom ñu woo ko mu ne Aliou waaw donc su ma yitteloon pour ma gis ko lool. loolu noonu la war a demee danaa ko def. yow Aliou Sall rakku Macky Sall nga ñëw pale. waaw naan la doo dugg. ah waaw mais man bokkuma pale liggéeyuma fa donc bu ma ñëwee dama war a yëglu. Ah. donc loolu normal la ma yëgloo ñu recevoir ma loolu a aucun problème mais au delà de ce dama la bëgg ne man bokkuma woon ci cercle politique restreint bu Macky Sall mosuma ci bokk. donte amoon na ay xalaat donte am naa expérience. bëggoo ko wala moo ko deful. non moom defu ko waaye ñi ko war wuñ ko ci parce que nit ñi bu ñu dëkkee sa nopp yi naan la diw dalaa bañ diw bu la jegee lay yàqal diw day ternir sa image diw day def li diw day def li buy te yow doo ko déglu bu yàggee rek da nga koy xaw moytu mais loolu yëpp c'est pas le plus important le plus important c'est que je reste euh, très fier euh, d'être le jeune frère de quelqu'un qui a révolutionné le pays qui a aidé les couches sociales. Euh, barki dem rek laa fi jóge dem ba ñombaatu dem ñëwaat ci journée bi rapidement su ma xalaatee yoonu ñombaatu lu mu meloon donc fierté lañ mën a am ci moom mm. donte nit ki nag su ngeen àndee euh, làmmiñ ak bëñ du tere yenn saa yi mais bu taxawaatoon tey ndax sama mag la waaye ndax gëm naa euh, impactam ci Sénégal mu votel ko loolu laa c'est pas évident euh, mm. parce que Macky Sall quand même defatu Amadou Ba bi Macky Sall lañ ci sanctionné waale lu bëri mm. euh, ci xëy na bilan ak itam euh, manipulation yi mu def ci processus électoral bu ñu woon di dem ah. élection même buñ koy gagné sax moom lay àndal waaw d'accord mm. waaw parce que même bilan bi ngay bi ngay tagg ni Euh, bon le bilan bi moom Babacar xanaa ku tëju sa bureau demoo fenn duggoo ci réew mi wala tu n'es pas très honnête reconnaître que Macky Sall de par son action a révolutionné le pays dans le bon sens en matière d'infrastructure dans le cadre de l'éducation y compris de nos grandes et, écoles d'ingénieurs euh, dans euh, l'agriculture pas forcément dans la gouvernance mais gouvernance parce que ci Macky Sall avons ñu gis euh, ak dégg nous avons caxat doko alalu réew mi Sauf si c'est ñu nit ministère ba direction muy la dem de bah, de loolu am na donte man dama japp ne xam nga bo nekkee ci nguur nga dem au bout de 8 ans 9 ans 10 ans da ngay am problème pour maîtriser ñi nga xam ñom ngay dénk mbir yi y a beaucoup de gens qui je trouve ñom ils ont trahi Macky Sall lool moy vraie trahison manam ñu dénk le mbir am ci yow yaakar ngay caxat caxatee alors réew mi loolu amna fi euh ñu dénk le mbir nga bañ ci def sa fulaak sa fayda loolu tam trahison la amna na fi y a des gens effectivement qui se sont enrichis de façon éhontée de président yógu xam naa moom sax li mu fi jógee gis yéen yi dina am mbetteel yu bëri ak yu bëri yu ko naqari mais man li ma soxal mooy bu ñuy wax bradage foncier ma ci bu ñuy wax tibb alal ci société publique bokk ma ci. mbuurkaat ak filao yi amoo ceem. non filao de am naa fa actuellement nii filao Guédiawaye en tant que ancien maire de Guédiawaye am naa fa quatre cent mètres carrés lu ko weesu amuma ko. lépp lu ñu gis conseil municipal yi amee. ñu ko conseil municipal yi ñoom nag am nañ peut être 200 ñi am 150 man am naa 400 mètres carrés waaye dama bëgg wax ne bépp suuf buñ ne allé sall dañ ko ko may su yow may naa leen ko dañ ko nangu aw ma ci suuf aw ma marché public tibbuma alalu réew mi loolu moom sama baat ca kaw du ku nekk nag moo ko mën a wax. Mm. te Babacar nag kaay ñu wax ci avenir parce que loolu moo ëpp solo. man génn naa APR tey mais dañ ciy wax. dañ ciy mais ginnaaw ci gouvernance lañ nekk. Euh, Mansour Faye euh, est-ce que li ko Macky dénk ci fukki at ak ñaar yëpp doxal na ko yoon. Ah, <laughs> loolu kay yéen xool leen rek lan la ko dénk solidarité nationale loolu moom amul problème loolu defe naa ne dugal ci ay camion la séddale séddale bi war a jaar yoon bon am na nag ñu wax ne. jaarale ko yoon parce que am nay rapport cour des comptes man liiruma rapport ba xaw ma lu ci xew donte nee nañ Covid bi loxo mu ngi ci man loolu wóoruma très franchement par contre gestion am ci wàllu ndox laa wax ni c'est une catastrophe c'est une catastrophe parce que ndox dafa nekk lu sensible ci réewu Sénégal jël ndox mi nga xam ne genn wàll gi nguuru Sénégal moo ko financé beneen genn wàll gi nit ñi ci seen alalu bopp émigré yi ñoo financé ay forage nga jox ko ay privé yoo xamante ne yokkuñ ci benn dërëm investiruñu qualité ndox ma yàqu ñu yokk cherté ndox mi loolu catastrophe la loolu laa wax boo am na yeneen yoo xam ne nag duma ma ci dugg léegi waaye ñu ma sànniwaatee xeer rek ma sànni leen bomb bu soobee yàlla ndax am na yu bëri nag yu ma xam ci réew mi bul fàtte na Babacar sa confrère la je suis journaliste je suis je peux pas très informé mais je suis un